الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان وها هو الصحابي الجليل أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéwal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi comme ni ngeen ko xamee sahabatul kiram noom ñoom ànduñu woon ak yonent bi rek di ko woy ak di ko tagg ànduñu woon ak yonent bi ci du barkeelu ci moom rek bu naanee wala bu lekkee ba desal wala ci ay yéreem wala su toogee wala suy dox bal dañoo àndoon ak yonent bi mu leen di jàngal ci lan moo leen di indil njëriñ àdduna jubooleeg seen boroom bu ñu faatoo boroom bi musal leen ci safara dugal leen aljanna looloo tax kenn ci ñooñu nga xam ne ñoo ko waroon moom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy abu zar te nga xam ne turam mooy jundab ibnu jonaada alxafaari yi waaye dàkkantalam moo tax ñu koy tuddee abi zar bokk na moom abu zar ci ñu jiitu ci lislaam waaye bokk na ci kàngami sahaaba yi mag yi moom abi zar waaye mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk a nuyu yonent bi ci nuyoo lislaam awalu man hayya rasul bi tahiyati lislaam huwa abi dhar moo njëkk a wax yonent bi assalaamu aleykum waaye moom abu zar daawul ragal daawul tiit daawul yox-yoxi ci su yàlla diglee amul kenn ku muy ragal ba du la wax dëgg moom abu zar moo laaj yonent bi laaj boo xam ne yàlla na ci ñun tey buñ doon dund ak yonent bi wala ñu fekke woon jamonoom jàkkaarloog moom ñun ñëpp kenn ku nekk ci ñun laaj bi war naa jóge sa gémmiñ jëm ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu tax ndax abizar li mu laaj mooy yonent maaza yunji al abdu min an naar lan mooy musal jaam ci safara loolu aajowoo nañ ko wala aajowuñ ko wallahi ku nekk fi nga toog tontul sa bopp wallahi aajowoo nañ ko ana lan ana yan jëf ana yan wax ana lan moo nuy musal ci safara ñun ñëpp aajowoo nañ ko bu fekkee ay jullit lañ moo tax abu zar lan la wax al abd waxu ko man waxu ko ñun dafa ne ko maaza yunji al abd min an naar yow yonent bi yàlla yónni ci jaam yi waaw jaam yi moom bu ñu bëggee mucc ci safara an lan moo leen di musal قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بالله يننت ملكو لنجك lii musal jaam ñi ci safara mooy ngëm ak tasdiq bi kulli ma jaa bihi nabi sallallahu alayhi wa sallam min indillah mooy nga dëggal lépp lu la yonent bi indil jële ko ci yàlla loolu mooy al iman muy ngëm nga def loolu abizar ne yonent bi ya nabi allah ma al imaani amal ah ngëm day day ànd ak jëf ngëm kese du doy looloo tax ci qur'an ngeen ñuy jàng guddeeg bëccëg illa alladina amanu wa amilu salihat foog ngëm di ànd ak jëf ngëm gu amul jëf loolu du dara pënd ak poussière kese la isan ma al imaani amal abu zar moo tontu yonent bi ne ko ngëm day day ànd ak jëf yonent bi ne ko waaw waaw waaw mu ne ko ngëm googu di ànd ak jëf yooyu nga xam ne moo war a musal jaam bi ci safara jëf yooyu lan la قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ترضخ مما خولك الله يعني تعطي مما ما مما ملكك مما ملكك الله تعطي مما ملكك الله mu ne ko abu zar jëf yooyu daal bu ci jiitu mooy li la yàlla jox nga yor ko ci sa loxo wala mu nekk sa poos mbaa nga denc ko nga ciy coppati di dimbali jaami yàlla yi loolu mooy li njëkk ci jëf yoo xam ne day ànd ak ngëm fexeel li la yàlla dénk wa mimma razaqnaahum yunfiquun ci li leen yàlla jox dañ ciy joxe ñoom lu ñu dajalee rek jal ba jàpp ne seen alal yaxsabu anna maalahu axlada jàpp ne seen alal dina leen saxal fii ci àddina déedéet ñooñu seen alal lan la leen di jëriñ mooy da leen di dimbali ci jaamu yàlla da leen di dimbali pour ëllëg ñu mën a mucc ci safara wallahi bu abu zar yemoon fii kon doon na doy ñu xam lii musal nit ëllëg ci safara mooy ngëm gu ànd ak ay jëf jëf jooju abu zar bi mu laajoo yonent bi mu ne ko li nga yor nga jàppale ci jaam yi mu ne qultu ya nabiyallah moom abu zar ba tey mu ne ma ne yow yonent waaw da nga ne day jëf yooyu foog nit am lu mu joxe waaw ya nabiyallah fa in kaana faqiran laa yajidu maa yardaxa waaw waa jooju bu fekkee faxiir la nag amul lu mu joxe nag lisaan fa qaala annabiyi sal allahu alayhi wa sallam yaamuru bilmaaruf wa yanha an ilmunkar fekkee waa ji amul lu mu joxe xanaa nag lu mu deedee lu mu lot lot mën naa digle lu baax tere lu bon kon bu dee jaam waa ji faxiir la amul lu mu joxe yonent bi ne yaamuru bil maaruf wa yanha anil munkar na digle lu baax tere lu bon ci ñun tey ci sunu kër yeeg mbedd meeg dëkk bi gis nañ lu bon lu ñu tere wala gis nañ lu ñu baax lu ñu digle lu fekkoon ne tey jullit yi dañuy góor góorlu kenn ku nekk ci ñoom suba ba ngoon da ngay digle lu baax di tere lu bon ko dëkk bi du du yàqu waaye dafa am ñu neutre ci mbir mi ñu noppi dafa am ñoo xam ne digle lu baax ñoom bokkuñ ci tere lu bon ñoom bokkuñ ci bal sax am na ñoo xam ne bi diddi bil aksi dafa am contraire yaamuruuna bil munkar dañuy digle lu bon di tere lu baax contraire bi sax léegi moo am te xoole yonent bi lu mu wax abasar lii musal nit safara mooy ngëm Abu Zar ne ko ngëm day ànd ak jëf mu ne ko jëf ji mooy boo amee jàppale say mbokk mu ne ko bu fekkee nag sama mbokk mi faqiran laa yajidu maa yardoxa amul lu mu joxe yonent bi ne ko mu digle lu baax tere lu bon Abu Zar bàyyiwul yonent bi de mu ne ko fa in kaana laa yastatiu an yaamura bilmaarufi wa yanhan anil munkar nag waaw bu fekkee waa ji dafa mel ni nun dafa yaafuus dafa yambare xamul li ko yàlla sant buggul tiyaaba faalewul diine ba du digle lu baax du tere lu bon waaw bu fekkee waa ji noonu la mel nag natiiram mooy moom daal wax dëgg yàlla dafa mel ne rek tele bu ñu teg buñ ko taalee lay tàkk mu wax buñ ko fayee mu noppi fekkee waa ji noonu la mel moom du yëngatu du wax du digle lu baax du tere lu bon yoonam nekku ci yonent bi bàyyiwu ko de qaala fal yu in al axraq fal yu in al axraq waaw na jàngal boog ab jaahil na fekk ku xamul dara ci diineem ku xamul dara mu jàngal ko allahu akbar yonent bi du bàyyi parce que waa ji li mu laaj moo rëy waa ji tamit aljanna da koo yitteel ba du bàyyi fop yonent bi wax ko lan la nit di def bu mucc ci safara lu tax yàlla wax ci qur'an ne faman zuhziha ani nnaari wa udxila aljanna faqad faaz xam ngeen ku taxe yonent bi nee na mooy ku ñu rëccal ci safara dugal aljanna kii moo texe léeg-léeg nga dégg ci réew mi ku ne bu ma sama kër gi bu noppee rek ma texe bu ma dundee ba jënd oto rek texe bu ma dundee ba sama njàng doom yi egg ñu texe bu ma dundee ba sama doom yi sëy texe bu ma dundee ba tukki texe yàlla nee na loolu du texeloo luy texeloo mu ne faman zuhziha ani naar wa udxila aljanna kooku moo texe faqad faaz allahu akbar ku sa ku yàlla subhanahu wa taala rëccal ci safara dugal la aljanna yow yow yaa war a zibile yow yaa war a wax texe nga yow yaay ki mucc yow yaay ki am kontante yàlla ci àdduna alaxira nga am mbégu yàlla subhanahu wa taala aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله وحتى الآن ما زال أبي ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب الحبيب batay abi zar dañul di laaj yonent yonent di tont waa bu dee waa ji mënta dimbali nit mënta wax lu baax mënta digle lu bon waa léegi nu muy def yonent bi ne ko fal ya in al axraq na jàngal ko xamul fal yuallim al jahil alladi la yaarifu suna na xamal ko xamul na jàngale na leeral diine na waxtaan ak nit ñi ab julit warul noppi dafa war a neexe ku nekk waxtu wu nekk yiw di génn ci làmmiñam pour jëriñ jaam yi yonent sallallahu alayhi wa sallam abu zar ba tey ne yonent ya nabiy allah araayta in kaana laa yastatiu an yasna waa waaji bu fekkee mënta dimbali kenn mënta jàngal kenn waa léegi ba tey nu muy def fa qaala alhabibu muhammad sallallahu alayhi wa sallam fal yu in al mazlum waa léegi nag na dimbali ku ñu tooñ kon na fekk ku ñu tooñ mu jàppale ko dimbali ko yonent bi nee na unsur axaaka zaliman aw mazluma dimbalil sa mbokk su tooñee ak buñ ko tooñee saaba yi ne ko yaa rasulallah yow yonent bi ñun dey xam nañ sunu mbokk suñ ko tooñee nañ koy dimbali waa léegi bu tooñee nag mu ne ngeen jàpp ci loxoom yóbbu ko ba kër ga ne ko toogal mu toog ngeen ne ko yaa tooñ ragalal yàlla noonu ngeen koy dimbalee waaye kii yonent bi dane fal yu in mazluman na fekk ku ñu tooñ ñu dimbali ko ba tey rek yonent baa ngi wommat abasar di ko wax mbir yi nga xam ne su ci doomu aadama taxawee sori safara dugg aljanna qultu ya nabi allah abazar ne yonent bi ba tey waaw araayta in kaana daifan la yastatiu an yuina mazluma bu dee sama mbokk mi dafa nooy dafa yaafus ba munta dimbali ku ñu tooñ amul doole léegi ba tey nu ñuy def ndeysaan yenente bi nga xam ne léppam yërmande la mu xool abazar mu ne ko maa turidu an tatruka li sahibika min xayr yow day bëggoo bàyyi bëggoo ubal waa ji benn bunt bunt yëpp yaa ngi koy jéem a ubbi rek ndax waa ji rëcc ci safara yaa ngi ubbi rek bunt yi yaa ngi bëgg rek may leeral masala yi lan la nit di def ba rëcc ci safara moo tax ngay laaj rek yow bëggoo ubbi bëggoo tëj benn bunt maa turidu an tatruka li sahibika min xayr bëggoo ubal waa ji benn bunt bunt yëpp nga bëgg a ubbi ba tey rek kon nag li yëpp waa ji mënu ko kon nag la yumsik azahu anin nas ngal la waay moom waa jooju comme mënul li la ne tee ay lorom bu mu lor kenn ne tee ay bëtam bu mu ci lor nit ay noppam gémmiñam loxoom awraam tànkam ay jëfam ne ko téeba bu mu lor nit la yumsik aadahu ani nnaas ne téewu ci lor nit ñi lu tax al muslim man salima al muslimun min lisaanihi wa yadihi jullit dëgg mooy ki nga xam ne loxoom ak làmmiñam du ci lor kenn ko koy jullit qultu ya rasulallah abazar ne yow yonent bi yàlla yónni araayta in faala hada yadxulu aljanna waaw waa ji lii ma la laaj bu ko defee ndax day dugg aljanna qaala annabiyu ma min mumin yatlubu xislatan min hadihi alxisaal illa uxizat biyadihi wa tudxilu aljanna xatta tudxilu aljanna maa ngi la yëgal yow abasar waxuma la mbir yi yëpp nit boole ko waaye benn rek bu ci nit saxee mu jël benn ci melokaan yii mu dund ko ba faatu maa ngi lay yëgal ne man yonent bi maay kii jàpp ci loxoom dugal ko aljanna waxuma la nga boole lépp waaye yonent ne ko maa min muminin yatlubu xisla amul kenn ku gëm yàlla kuy jóg di jël benn melokaan ci yii benn la wax xisla min hadihi alxisaal illa axastu bi yadayhi lu dul man yonent maay ñëw waxuma ma jàpp ci benn loxoom waaye bi yadayhi ma jàpp ci ñaari loxoom xatta adxaltuhu aljanna lu dul ma dugal ko aljanna allahu akbar lan moo desati ndax lii du taraanga du mbég ku yonent ñëw jàpp ci sa ñaari loxo waxuma sax mu jàpp sa benn loxo waaye mu jàpp ci sa ñaari loxo hatta axastu bi yadayhi la yonent bi wax ci ñaari loxoom laa jàpp ma dugal ko aljanna mbokk yi lan mooy taraanga ci nit mu génn àdduna ñu dugal ko bàmmeel yonent alayhi salaatu wasalaam ñëw jàpp ci ay loxoom dugal ko aljanna ndax taraanga mën na gën a rëy loolu ndax yiw mën na gën a rëy loolu waaye aljanna jooju taraanga boobu kenn du ko mun a am lu dul ku boole juróomi melokaan wala nga góor góorlu ci benn ci juróom yi awalan al iman il faut nga gëm ndax bépp jëf bu nit jëf te àndul ak iman jëf jooju day dajjeeku wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansura ay nit a ngi ni yu jëfoon ci àdduna waaye ba ñuy jëf lu baax loolu ñu jëfoon yépp amul iman lan la ko yàlla def pënd ak poussière kon ku bëgg ci ñun yàlla di nangu say jëf na nga yëg ne da ngaa war a jiital al iman mooy nga am ngëm ñaareel mooy al infaq fi sabilillah di génn ci sa poos li la yàlla dimbali li la yàlla dénk nga ciy jàppale jaamu yàlla yi ñetteel al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar di digle lu baax doomu ndey di tere lu bon ñeenteel musaadatul mazlum dimbali ku ñu tooñ juróomeel al imsaak an aadaahu anin naas foog jullit bi te aw ayam bañ koo jëme ci nit ñi foog jullit bi te aw ayam bañ koo tasaare ci jaami yàlla yi foog jullit bi te boppam ci lor yi muy lor jaamu yàlla yi mu xam ne ñàkk a lor jaami yàlla yi aljanna la koy yóbbu mbokk yi nekk yonente alayhi salaatu wasalaam amul benn bunt bu mu tëj amul lenn lu mu bàyyi loo xam ne bu ko nit defee du ko aljanna lu dul moom yonent alayhi salaatu wasalaam jàngale na ko amul lenn loo xamante ne bu ko nit defee dugg safara lu dul moom yonent alayhi salaatu wasalaam leeral na loolu tere na nit ñi ñu def loolu looloo tax sahaaba yi àndoon ak moom guddi ak bëccëg ñu koy laaj moom yonent muy tont kenn dina kii kenn waru koo laaj déedéet comme ñun tey nu ñuy def di ànd ak kilifa yi rek lan la ñuy jëriñoo ci kilifa yi lu dul ay yére lu dul ay oto lu dul ay dëkkuwaay lu dul lu dul lu dul déedéet ñoom ànduñu woon ak yonent bi loolu dañoo àndaan ak yonent bi ci jël ci jàng ci leerlu ci ut xam-xam looloo tax te yonent bi moo leen wax loolu moo leen ne innama bu istu mualliman yonent bi dafa génn ci jàkka ji fekk ñee di julli mu fekk ñee di sikkar mu fekk ñee di jàng mu daal di jubal ci groupe bi jàng daal di toog ñeneen ñi ne ko waaw yow yonent xanaa ñun li ñuy def bokk amul importance mu ne leen aha kay waaye innama bu istu mualliman yàlla daf maa yónni may jàngale kon ci jàngalekat yi lay toog moo tax ba leen ba ñu xamee ne yonent bi yàllaa ko yónni pour mu jàngale ñoom nan lañ def ñu nekk ay jàngkat ku ci toog ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam loo koy laaj mooy luy yokk sa adduna luy leeral sa diine pour nga xam fooy teg sa tànk ñoom ànduñu woon ak yonente bi rek barkeelu su yonente bi naanee ñu njëkkante pot bi su yonente bi solo mbubb bi teg ñu yëkkante ko su yonente bi desalee wala ñuy xool fan la tegoon gémmiñam wala ban ban lan déedéet dañoo àndoon ak yonente bi yonente bi di leen jàngal sallallahu alayhi wa sallam looloo tax Abu Zar ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay laaj maa za yunji al abdu min an naar waaw jaam naka la mën a def ba mucc ci safara ndeke kon tomb yi leer na yonent bi jàngale na ko ubbi na bunt yi wax na jëfe na leeral na ñun ñoo ci des boroom xam-xam yi dañuy wax ne ci waxtu sedd sedd bu métti ñu jox la sëru dënk wala ñu jox la mbàjj indi la ci ab lal tëral la jox la mbàjj lan moo ci des ku nekk yaay tontu ku nekk yaay tontu ca la des ca mbàjj ma ak yow mbàjj moomu ñu la jox lan moo ci des kon yonent bi bu waxee lii rëccal jaam di ko musal ci safara di ko dugal aljanna yamul ci ne da ngeen di dugg aljanna mu ne man yonent hatta axastu bi yadayhi man yonent maay jàpp ci loxo waa jooju lan moo ci desati mooy nun la rek ëllëg ak si biir buñ duggul aljanna ñun la ëllëg ak si biir ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo xeexul ak sunu bakkan ñoo xeexul ak seytaan ñoo góorgóorluwul pour jéem a tegu ci yonent bi ya yoon wim nu bàyyi wallazina jahadu fiina lanahdiyanna lanahdiyannahum subalana ñi nga xam ne dañoo góorgóorlu ci sama yoon wi borom bi subhaanahu wa taala nee na dinaa leen ci teg kon ay tomb la yoo xam ne juróom la yonent bi nee na ku ci góorgóorlu ci benn ku ci góorgóorlu ci benn ba mu nekk ci yow nga dund ko ngëm yàlla joxe ci yoonu yàlla digle lu baax tere lu bon dimbali ku ñu tooñ tëyal nit ñi saw ay yonent bi nee na ku góorgóorlu ci yii ëllëg may jàpp ci sa loxo dugal la aljanna yal nañu yàlla boole ci ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dugal aljanna allahuma اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة